daan wax ñoom am nañu lu tax ñu noppi. mais ci ci communiqué société civile tamit ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy liir que ni ñu ngi préciser que maanaam réédition oui d' accord mais tamit euh, euh, ngalawaay comme pour dire que ni bu mu nekk fayantoo. oui mooy li ma la wax sànq da nga leen wax reddition des comptes ñu dem def règlement. loolu lañ ci mën a sous-entendre en tout cas règlement de fii nii je pense pas je pense ni am na benn sénégalais moo bu bëgg Sénégal te bëggul li daan xew jeex cest à nañ leen jàpp comme j'ai l'habitude qu'il pourrisse en prison jël xaalisu réew mi mais dañ ko jaarale si yoon c'est pas parce que dañuy xool Damel Maïssa mu sol costume bu rafet rek ñu ne suñu xaalisu réew la sàcc comme ça des rumeurs des liveurs des tiktokers ñoo koy wax rek ñu war ko xañ ay droit am. kon de xanaa di ànd ak ku mel ni euh, Birame Seck bi insisté toujours pour ñu publier li nga xamante ni moom moo di rapport yi. mais attends luñ ñu ne ñu ko jénne rawatina rapport Prodac bi ñu bëri. non Mame Mbaye Niang mu ngi fi il est mu ngi Sénégal fii. ñëwaat na je pense bien su ma juumul. Ah. ñawaat na récemment gis nañ euh, muy muy muy xaw a wax sax def na benn poste su ma juumul donc nañ leen nañ leen jàpp ku jël xaalisu réew mi man dama ne ku jël fukki dërëm lu ñëpp bokk sax dañ ko war a jàpp mais waroo régler waroo créer règle boo xam ne day indi anarchie ça dafa war a jaar dans les règles de l'art ñu bàyyi ak yoon mu def liggéeyam bañ a tardeel sax suñuy débat parce que loolu waratul nekk débat mais un pays mature waruñu nekk fii di débat naan diw dafa jël kañ lañ koy yóbbu kañ lañ koy jàpp premier ministre naan semaine bii di ñëw lañ koy commencé mais loolu warul nekk waxtaan. Mm-hmm. c'est-à-dire information la war a doon mooy que diw convoqué nañ ko journaux yi wax ko. jàpp nañ ko lii lañ ko jàppee journaux yi wax ko mu jeex on continue le travail un gouvernement sax waru attardé ci loolu parce que am na justice bu fi nekk pour loolu mais pourquoi toujours gouvernement bi mooy attardé ci loolu mm. pour faire chaque jour tintamarre wane na nit ñi ñun on est là quoi mm. Mm. jaru ko alors tuuti ma signalé dese waxtu bëreetul mais dama bëgg ñëw rapidement ci deux propos à polémique bi ci jiitu mooy les propos de Cheikh ma ah. nga demoon ca Masalikul bi <laughs> xam nga lii moo tax nag ñoom ñu jàpp ni propos Cheikh Oumar Diagne ñi li ci laxasu moo di politique parce que dafa am ñoo xam ne dañu ko def récupération politique bëgg ko politiquer alors que yëf yi mënoon la bañ a yegg foofu. Penda. oui man su ma waxee déglu man déglu man déggoo ma ma wax Cheikh Oumar na démissionné déggoo ma wax nañ ko dàq dugguma ci débat politique. parce que on parlait de ngëm-ngëm on parlait de tarixa xam nga man lu ma bëgg sénégalais xam ko. Hmm. y a de ces choses yoo xam ne man du ma ko fooyee muy stabilité Sénégal cest à man Sénégal am jàmm man je je badine pas avec maintenant y a de ces sujets yoo xamante ne. le président aussi on doit bi muy jënd taskat xabaar yi dégg nañ ko mu ne moom ci magistère am euh, dina fexe ba jàmm am ci réew mi. non jàmm nag dëgg ko lal aussi kon moom aussi mun nañu. jàpp il badine pas la paix de ce pays la paix et la stabilité de ce pays. non non président bokkuñu poursuivre président bi ma ne na wax dëgg na wax ay ñooñam dëgg xam nga su Macky Sall bu ñu daan woo waa Pastef fi naan leen bàyyi leen xeex bi arrêté leen xeex bi yaa ngi fàtte seen fameuse euh, réponse bi lan la woon mooy kiy dóore ngeen di wax mu arrêté dóore yi ndax moo yor non laa laa buñ <laughs> buñ ñu wax leneen ñoom ñoo ñii ñiy déconné nii di wax lu mën a tas réew ci ñoom lañ ne nañ leen yar nañ leen yedd nañ leen wax dëgg foofu la jàmm di commencé jàmm ci wax dëgg la commencé sookulu jàmm wax dëgg la nee nañ jàmm bu doon oto moteur bi dëgg la dëgg. est-ce que du tànk jàmm yooyu la le PM dem doon doxi ji démb ci guddi ci ba mu demee rencontrer le xalif. en tout cas rumeur yi jénn mooy que waa TFM ñooy nañ dakaar at Actu dane xamul Cheikh mal Diagne man ci déclaration bi ma gis ci micro Dakar Buzz daanaka discours bu ni mel la tenir mooy que ne fonk naa diine bëgg na mu ngi ciy jéem kéem talaay kàttanam te képp kuy xarab. kilifa diine bokkoo ci man ci man c'est important man la wax <laughs> ça veut dire que moom Sonko nekkatul jamaay jamaay du Sonko waa ji fu mu bokk ci kan waa ci ban gouvernement la bokk moom ay responsabilité moom dégagé na ko ci moom nee na bokkul ci moom ci moom Ousmane Sonko loolu nag communication la. mais loolu yàgg na ko wax sax laata muy nekk premier ministre yàgg nañ ko dégg mu naan ñi ngay gis ñuy saaga ñi dañu yenn propos yi ñu ci man. non Penda loolu moom je vais pas me répéter ici loolu mosuma ko jox crédit wax boobu noonu d'une manière officielle wax ma ba lan la mës a def contre ces insulteurs là d'une manière officielle. Penda exemple bi ma joxoon waayu Pastef ba ca plateau ba laa lay joxaat nee ñun ci ay këru mag lañu la ñu yaroo Penda ñaata yoon la sa doomu grand frère jënd door sa doo dóor sa beneen doomu grand frère bi mu jënd ci ëtt bi sëfal ko. ko bu ko dóoratee kii sa rakk la boo ko laalatee nga xam ñu dugg si biir mu ne bu la ko tooñatee rek dóoral ba mu ba kenn wax ci ñaata yoon nga gis lool c'est ça leur méthode buñ génnee ci place publique ñii saaga bokkuñu ci ñun buñ duggee ci biir la ñuy wax nga xamul et puis bokkuñu si ñun c'est trop facile ça tu règle ça suñu yorul sa poto profil passif la ñuy waxal wala ki wax li la arrangé wul la ñuy saaga kon fu ñu bokk. d'accord maa ngi ñëw maintenant oui. maintenant par rapport ak Cheikh Oumar Diagne. oui. jàmm kenn du ko fooye jàmm du ëpp te loo ci am du doy. nañu bàyyi lu ñuy foowe pas-pasu nit ngëm-ngëmu nit nit ki choix yu muy def religieusement yoonu kenn nekku ca ku ne yamal sa bos man lii laa koy wax c'est-à-dire Cheikh Omar Diagne moo ko wax ne moom prophète bu bees la bu ñëw ci jëmmi jamono pour war a wax nit ñi seeni pas-pas ak seeni ngëm-ngëm mais ndax yoon la yi nga xamante ni jiitu na li nga xamante ni moo di nombre tànk yu ma am parce que dégg naa sax ci Abdou Karim Xurum Xaax muy fàttali ni vidéo yi ci ab émission yi la yoo xamante ni ñu bokkoon la depuis 2015 xam nga 2016 ndax yoon la tamit tey jii ñu ramanewaat yooyu les vidéos plus peut yaa ngi dugal jomaay de yaa ngi koy dugal ah ci naka cest vidéo yooyu bu fekkee est dama lay expliquer lu tax ma naan la yaa ngi dugal jomaay bu doonoon tay la garaawul parce que da koo tànn dugal ko ci guvernement ba tare ba pare wax ji doon tay waaye bu doonee wax ji wax ju yàgg la nga xam ne kii moo ko waxoon ba pare nga dugal ko ci gouvernement bi non kon jëfu tayam bi yow yaa ko encouragé yow looloo la neex ah, profil booboo la gënal mais ay vidéo ko ci gouvernement mais Ameth yu yàgg euh, waaw jël ay vidéo yu yàgg waaw bëgg ko ramener sur la place publique si jamono nga xam te ne na yenn euh, propos yi envers la communauté mouride est-ce que de plus pour pour envenimer les les choses bu fekkee vidéo yu yàgg la ci la affaire bi garaawee moom laa lay wax maanaam taxul affaire bi bañ a garaaw yow li nga ma bëgg a expliquer comprendre naa ko mais déglu ma bu baax maanaam bu doonee vidéo yu yàgg la dañ koy doog a jénne ñi ko jénne léegi dañ ñoo bëgg a wax ne waruñu ko woon jénne parce que ñoom ñoo bëgg a amplifier bi ma ne déedéet bu fekkee vidéo yu yàgg la ci la gën a garaaw kon waa ji nekkate depuis boobu ba léegi mu ngi fi wax lu toll nii am un président de la république bu ko fat ci palais bi looloo garaaw cest kon da koo permettre mu nekk ci continuité cest à li mu doon wax amul appareil pour def ko da koo jox les moyens pour mu dëggal ko pour mu def ko bokk na ci kon bañ a jox waa Touba hôtel bi <laughs> ndax la mu doon wax kon jox nañ ko léegi outil pour mu koy dëggal looloo garaaw. moo tax ma naan la yaa ngi dugal jomaay léegi nag li ñu war a fexe mooy. man dugaluma jomaay de. non dugal nga ko kay. bu ma indi benn vidéo yi yàgg yi jomaay ndeke xam na ko. bu ma indi benn jafe-jafe mu jël ko dugal ko ci bale bi ñu doon la atti kat. xam nga xam nga. Cheikh Omar Diagne waa Pastef ñiy jéem a layal Cheikh Omar Diagne yàlla baax na xam nga lu ñu war a xam xam nga lu ñu war a xam Cheikh Oumar jaañ lii muy jéem a wax Touba di ko jéem a wax ay grande mosquée ak ay nangam yàgg naag ren laag daaw la lii mu xañ waa Touba ci màggal gi otel bii buñ ko waxoon Ousmane Sonko ñoom ñëpp seen live yaa ngi tàkk actuellement nañu bàyyi naa fekk baaxul kum ko ci waxoon sa wayjur kum ko ci waxoon Ousmane Sonko mii ñu jël bëgg ko def yàlla bu ko ko waxoon tey jii propos yii. Cheikh Omar Diagne du fi xaj nañ bàyyi lu ñuy def. d'accord te ñu jéem a wax ko. Mhm. jàmmi réew mi réew mi dafa am ci lu mu toog li mu toog mooy que. depuis Senghor ba léegi ñëpp xam nañ ne ku ne da ngaa yem sa place ku ne da ngaa yem sa place ba pare nag ñu dëkk dëkkin wu rafet. dëkkin wu rafet lañ dëkk. Mhm. man chaque jour nee naa cousinage bi am entre Tidjane yi ak Murit yi man ci réseaux sociaux yi loolu moo ma dàqal lépp mooy li nga xam ne dama koy seetaan di reetaan di kontaan. Mhm. mais mais imaginer loolu ay nit jóge fële mais bëgg ko yàq pour des détails te li ngay wax mënoo ñu cee indil benn firnde amul benn firnde comme di Pastef tout le temps quoi mooy wax nii pour wax rek après doo ñu mës a indil firnde doo ñu mës a indil dara ay nit nag bëgg a jóg défendre ko ci man loolu mooy suma mooy suma problème. dañ koo war a wax nag. Hmm. mu régler mu yem ci li mu gëm. Hmm. mu bàyyi ñeneen ñi ñu ñu ñu ñu téye li ñu gëm on force personne fii pour mu nekk murit wala mu nekk tijaan. Hmm. wala mu nekk laayeen u xaadar. donc ku nekk am nga fa nga gëm. te mënoo wax ba nit ñi tamit li ñu gëm nga jëlee leen ci. Mhm. xam nga si Sénégal. un Mouride un Baye Fall un Tidiane cest à li wax ji bari bari depuis loor yaa ngi gis ku nekk yi wax wax nañ ci lu ne. Mhm. mais ba léegi déggagoo ne nit wax na ba tax Mouride bi ne moom nekkatul Mouride. Mhm. wala Tidiane bi ne nekkatul Tidiane donc pourquoi wax ko wax boo xam ne yow li ngay wax yow xam na nga ne doo ci am gain de cause mais mën na indi ay tolof tolof pour yow wala mu indi tolof tolof ci dëkkin wi mais bu ko wax l'islam sax dane ak jamaatu rahma dëkk li li li mbooloo mi ànd sax fexe cee rek jéem a ànd pour rafetal pour jàmmoo pour lépp mhm. nga ne nag dangaa dégg l'islam ba pare bëgg nag mbooloo mi am fu ñu ànd nga bëgg cee indi féewaloo léegi laataa sama ñoo ki demel comme waxtu bi daf ñu xoj xaaral ma bi mhm. comme ci polémique lañu Euh, ci beneen polémique bu nga xamante dafa jógee ci le ministre de la santé Ibrahima Sy ministre bi nag sax ñi ko xàmmee bëriwul parce que euh, tout récemment sax je pense que commencé fay sorti si jamono bi nga xamante sax ñeneen ñi ngi commencé woon di laajte ani le donc ci ab vidéo bi nga xamante ni sax c'est devenu viral moom mu ci doon euh, waxanteeg askan bi ñoom doon waxanteel en tout cas ci kàllaamay pulaar la woon donc li mu ci wax nag gars yi tekk nañ ko nee na vous savez personne ne peut de politique Le secret, c'est juste avoir une stratégie politique avec une démarche qui peut séduire euh, les personnes afin qu'elles acceptent de nous suivre et partager notre vision. Mais ce n'est pas pour placer les personnes au devant et ça, j'accorde une importance capitale au niveau de mon ministère parce que à chaque fois que je reçois des CV à la première des choses, la première des choses que je fais, c'est de vérifier si le candidat est de PASTEF ou pas parce que ma, priori ma, ma priorité, ce sont les de PASTEF, a-t-il déclaré xam nga jur na polémique. coow la coow la fu mu ne nii non non da nga commencé fu am sol gën na bëri. boobu ba léegi ñu ngi laajte ana ministre wax ma ban événement religieux moo